ce lundi 27 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs. Il s'agit de 50 cas contacts suivis par nos services. 14 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 2 à Sangalkam 2 à Rufisque, 1 à Grand Médine, 6 à Touba, 1 à Thiès, à Sédhiou, 1 à Mbaké et c'est la femme qui est décédée hier. Un patient hospitalisé à été contrôlé négatif et déclaré guéri. Un cas grave est admis réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 442 sous traitement. Comme annoncé, le Sénégal a enregistré son neuvième décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 60 ans décédée au cours de son évacuation vers le centre de traitement et d'isolement de Touba. Le ministère la Santé et sociale présente ses condoléances la famille éplorée. Le ministère la Santé sociale exhorte les populations au des mesures de prévention collective et individuelle. salaamaaleykum maa ngi leen di jottali fii nga xam ne ci la mbas mi ñuy wax Covid 19 toll ci Sénégal. ci altine tey ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril 2020 ministère de la santé et action sociale jot na résultat yi ma leen di waaj a jottali ci juróom-benni téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-benn fukk ak ñeent ñoo ci dellu si ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk moom la ñuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne ñoom la ñuy saytu si suñu bërëbu liggéeyukaay yi fukk ak ñeent ñoom lañuy wax cas communautaire mooy yi nga xamante ne kenn xamul kan moo leen ko wàll te moom mooy yokk mbas mi fii ci dëkk bi ñu ngi leen di gis ñaar ci Sangalkam ñaar ci Rufisque benn ci Grand Médine juróom benn ci Touba benn ci Thiès benn ci Sédhiou ak benn ci Mbacké moom la yàlla moom démb am nañ benn patient boo xamante ne moom génn na ci lim bi nga xamante ne moom lañu ñu ci bërëbu fajukaay yi moom biñ ko saytoo amatul doomu jàngoro ji wër na am nañu nag benn cas grave ci suñu service u réanimation yi ñi nga xamante ne ñoo fa tëdd feebar seen wér yaram mu ngi ànd ak tan bi nga xamante ne mbas bi ñu Covid 19 dugg na Sénégal ba léegi ñu ngi tollu si juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn yi nga xamante ne ñu am doomu jàngoro ji ci yooyu ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñoom wër nañu juróom-ñeent ñoo ci génn àddina benn la ñu delloo réew ma mu dëkkoon mu des léegi fi nga xamante ne mooy bëju fajukaay yi. ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ni ñu ko waxee démb am nañu juróom-ñeenteelu nit ki nga xamante ne moo wàññeeku fii gaañu fii ci senegal ci mbas mi ñuy wax Covid 19. benn jigéen la bu tolloog ci juróom-benn fukki at mu ngi gaañu bi nga xamante ne ñu ngi koy transféré ci fi nga xamante ne moom la ñuy fejee mbas mi di Covid 19 fee ci Touba. ministère de la santé action sociale mu ngi jàlle ay mbokk ak askan wi yépp ñuy dooleeti di ñaax ministère de la santé action sociale ne nit ñi nañuy doolee di def li nga xamante ne moom mooy tax ba mbas mi du yokk di wàllee ci biir dëkk bi te nit ñi duñ ko am ci loolu ñu ne bi yi nga xamante ne moom lañ koy sol ñu sol nii tey bi ma sol ngeen gis ko nii bii nañu koy di sol bés bu nekk ku génn sa kër na ko sol amaana sax ci biir kër gi bu nit ñi xawee takk ko na ngeen ko sol te di ko sol ni ñuy waxe ne nañ ko sol di ko sol bu baax du tere ñuy yokk xàll wi mu toll ci diggante ñaar nit lu toll ak benn mètre ñu ngi dooleeti di tere ne bu kenn nuyoo ak ay loxo di raxas suñu loxo ak ndox ak saabu su fekkente ne dañoo bëgg a sakkat wala dañoo bëgg a tisooli ñu yor mouchoir suñu paree sànni ko ci mbalit mi wala si ñu sakkatee nii ci ci conc bi ministère de la santé action sociale mu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam.